bu baax a baax alhamdulilah ñëpp ngir wax alhamdulilah ñëpp ngir wax alhamdulilah yàlla mooy ñan wóor wéeru koor si jàmm ak salaam yàlla mu ñu boolee si wéeru koor bi wóor nañ ko bu ma sakk ñëpp wax alhamdulilah yàlla yàlla nangu jaamu nañ si yàlla ci wéeru koor bi bokk na si njëriñ ci wéeru koor ñu continuer ci jaamu yàlla naafile yi ak bokk na si njëriñ ci weer bi ñu continuer weer bii muy premier tey Sawaal Yonent bi sallallahu alayhi wa wax na nga tax si juróom benn fan ngeen woor ci weeru koor bi Sawaal juróom benn fan bii nag fukki fan bu njëkk bi mun na woor ci ñaari fan fukki fan bu njëkk bi mun na woor ci ñaari fan fukki bu mujj bi mun na woor ci ñaari fan mooy six jours alhamdulilah nañu góorgóor lu baax seen diggante ñun ñëpp ay julli nag ñu góorgóor lu baax seen diggante suñu joxe ngeen dimbalante bis bii bis mbetteel ñu jëkki suñu mbetteel ay suñu waajur boo amee su fekkee sa waajur dund nga dem si moom jëggal ko boo yenee si dal nga jox su fekkee ne say waajur génn sa àdduna ngay ñaanal bokk na ci ci bés bi ñu nu góor-góor sa waa kër ñu ñu góor-góor sa waa famille ñëpp balaa ngay baax feneen ngay baaxal sa kër gi balaa ngay baax feneen baaxal sa kër ak sa waa bopp euh, loolu moo tax bokk na si ci jaamu yàlla ngay baaxal sa kër gi. alhamdulilahi rabbil alamin boo génnee ci biti ngay baaxal nit yi boo nekkee ci kër gi noonu ko baaxal loolu musiba bisu bii bisu tey bi ñu am ni ñu ñu dëmb leen ci ñu ñu am ni ñu ñu dëmb leen ci ñu amul loolu mooy islam bari na koo xam ne dafa feebar ordonnance mille francs mënoo ko am ñu xaar bu mu génn ci àdduna kenn ku nekk indi indi ay ceeb indi ay nag indi ay xaalis loolu nekkul si islam islam nangul loolu loolu nekkul si islam yàlla wax na waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu loolu moo tax eh, musiba yi am loolu moo tax musiba yi am réew bu ñu bëgg jëm si kanam jàng ak liggéey réew bu ñu jëm ci kanam jàng ak liggéey ak waxtaan ci dëgg ak waxtaan ci dëgg loolu mooy tax réew bi jëm ci kanam. waaw xanaa di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñu mayee ñu fekkee bis bu màgg bi di sant yàlla ndax gis nañu daaw li xewoon. Euh, nga xam ne julli amul ndax mbas mi ren nag sunu borom daldi ñu tàbbal ci lii mu nekk yiw bu rëy ma ñëwoon julli si nag fii ak imam sàll ci HLM bi ma màggee déglu nañu discoursu imam bi ñu jàng ci lu rëy ci wàllu mbokk ak ci wàllu jàmm ak ci wàllu wesaare jàmm ci biir réew mi ak ci àdduna bi mu nekk discours bu ama am solo ñu taataan ci ay kàddu yoo xamante ne mun nañu ba dëwën kàddu yooyu di ñu jëriñ ci suñu nekkinu tey ak suñu nekkinu weer yii di ñëw dégg nañu ñaanam aussi ñaan yi mu ñaanal njaboot yi ci coono yi nga xamante ne xew na ci réew mi gis nañu ñaan yi mu ci ñaan gis nañu nag aussi imam daal di wax ne ndaw ñi lu mu metti metti rek nañu dellu si yàlla génn ci violence te xam ne ndogalu sunu borom su tàbbee ca ñoom mën na jagal seen lépp lii moo waral ñu ñëwoon tey ji ànd ak moom ci julli gi jumaa ji nga xamante ne tam ñoom ci seen mbaax euh, euh, président gestion bi dénk nañ ko suma waajur ma ñëwoon donc julli si xoolaal itam travaux yi mu nekk mbégte mu rëy ak honneur ci quartier bi nga xamante ne fii laa yaroo lii moo waral samay tànk tey ji ci jumaa ji. tey tamit mi xew Palestine. Uh-huh. gis nañ ko. Uh-huh. Euh, ñu foofu. Uh-huh. ban jàngat lañ ci mën a. xanaa di ko naqarlu bu baax li xew foofu di apporter suñu sutien bu kawe ci suñu mbokk palestiniens yi ci loolu ñu leen teg waaye sama xel dafa am ci lu mu dem dafa am benn benn jigéenu palestinienne am na léegi fukki at ci ginnaaw Israël dañoo mosoon a raser këram. rey njabootam ba mu des moom ak benn sëtam ndaw si bi ñu ko laajee lan ban naxar nga am mu ne tey rey nañu sama njaboot rasé nañu sama kër waaye am na loo xam ne te jëluñu ko ci man mooy sama yëg-yëg si sama borom ak sama cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu ñoom àdduna dugul tànk mukk ba ñu jël ko ci man donc soutien bi ñu ngi koy apporté suñu mbokk yooyu di ñaawlu li fa xew te gis nañu àdduna yëpp ñaawlu nañ ko Ah, li am solo rek mooy ñu ñaan yàlla mu indiwaat jàmm foofu ndax moom rek moo ko mën a matal moom sunu borom. waaw gis nañ suñu jiit yi aussi. Uh-huh. lu lu yées lii. bu uh-huh. xewee ci yeneen réew. Uh-huh. ñu ngi def ay communiqué di di ko ñaawlu di wax ay kii di waaye di fa dem. waaye bii yoon ñi ko ñaawlu ñu jël riposte néew na trop à part président Turquie ñu bëri defuñu ci dara. waaw loolu li muy findewaat rek mooy tënk gi nga xamante ne tënk nañu ko yenn réew tënk ko yenn chef d'État ci ay intérêt économique nga xamante ne yenn saay sax dañuy sori li nga xamante ne mooy yëg-yëg ci suñu borom mais li am solo même su fekkee ne peu seeni njiit yi waxuñu peuple yi ak musulman yi ñoom ñëpp fépp fu ñu nekk ci àdduna naxarlu nañu li li xew diggante Israël ak Palestine jërëjëf